am na ku masa laaj Sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu jaali nooru daare ni nu jaalibatul maraaxib ak yeneen xasida yi sëriñ bi ko lema xamal ni sunu boroom nangu na ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi nangu na ko jaran jóge foofee ca na ko sunu borom binde ba agsi fii ngir jëmmi téere bi siiw